leen gërëm bu baax amaat mbégte teew fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax a baax di ànd ak yenn ci solution info TV ni ñu koy defee alxamis junne bu 21h jotee ñu fa yéene jano ak yéen waxtaan ci actualité bi di masawu ñëpp nag ci taw bi taw bi sax taxaw na ñu mën a am ngànt waaye nag daf ci am loo xam ne kenn mënu ko noppiwaale. Madiambal Diagne waaw dama ne noonu Madiambal kenn du ko bàyyi muy dem kon di nuyu Ablaye jàlloo abdu Top ak euh, Modou juuf ak euh, Fallou Omar bun Xattaab gi ci kàddu gi ni ma ko junjee sànq tontu ak leeral waxi Madiambal Diagne day war parce que Madiambal Diagne bariwul ci sama dund lu ma jël temps di déglu ma jambal jaañ ba mu jeexal ci émission lu bari bu ma ko jàppee rek après damay zappe mais démb j'ai pris le temps d'écouter religieusement ma jambal jaañ pourquoi nu dégg ko religieusement ma jàmbal journaliste man intéressé wu ma man loolu laa jàpp loolu nag man la engagé li muy bind intéressé wu ma parce que dama jàppale nit la kii parparloo nit la koo xam ne ci boppam rek la nekk nit la koo xam ne dafa yàgg manœuvrer pour boppam boppam te jiituwul tey démb dama ko déglu mu ne moom c'est un homme transparent et éthique ma jambal nee na moom nit ku jub la te ku am ngor la maanaam moom day jubal du fen dégg rek lay wax mu loolu ma jambal jaañ wax ñun nag gisuñu ma jàmbal boobu dégguñu ma jàmbal boobu te da am yoo xam ne kenn du ko bàyyi mu jàll waxuma nguuru Macky Sall nguuru Ablaye Wade bi mu jeexee ma jàmbal mus na dem ci benn émission xaw ma fal la ñu laaj ko ci ni mu doon traité ci journalam Le Quotidien nguuru Ablaye Wade mu ne noo j'assume traitement bi mu doon def dama ko doon def contre le régime de Wade parce que méngawul woon li ma gëm ak samay intérêt ma jàmbal a assumer ça bi ma Macky Sall ñëwee ma jambal di doxee noonu di doxee pour ay intérêt pour man ma jambal jaañ mosul def journalisme ba ma ko xamee ak tey jii ma jàmbal ci ay intérêt lay bind ci ay intérêt lay wax lépp lu méngowul ak intérêt ak gis-gisam kooku noonu la lay def comme ni mu ko defee Ousmane Sonko. ma jambal kenn rek la mën a àndal ci àddina mooy Macky Sall ji nga bi mu paree ci Macky Sall sax dafa sànni Macky Sall dem wéeru ji Amadou Ba kookoy ma jambal jaañ parce que ma jambal démb nee na bind na livre ci Amadou Ba bind na ko ci Macky Sall bind na ko ci Sonko li mu bind ci Macky Sall bind ko ci Amadou Ba mooy daf leen doon géwalu di leen tagg di leen jaamu di leen tarbiwu pour am ci ñoom dara Ousmane Sonko mi mu yaakaarul dara ci moom bi mu bindee livre ci moom day yàq deram di yàq deram te li muy yàq dara du ci dëgg yàq na Ousmane Sonko ba xëy yàqu te Ousmane Sonko mi ngi xëy di gën di defaru maanaam ma jambal boo xoolee xam ne yàqu na boo xoolee xam ne ku perte la li mu nekkoon nag ba tey ji da kaa continuer mooy yàq Ousmane Sonko ba mu jaral ko mu ne mbiri aji saar moom moo génnee Adji Sarr dëkk bi kon mun nañ jàpp ni moom mooy tonton wu Adji Sarr te bokk mun nañ jàpp ni bi ñuy def complot bi ñu doon jàppale Adji Sarr contre Ousmane Sonko ci la bokk parce que yàgg na ci bind yàgg na ci wax ba si sax ay téere yoo xam ne kenn xamul mu toll. tey nee na moom moo assumé génne Adji Sarr dëkk bi nee na képp ku ciy wax ci mbiri Adji Sarr waane nga naxte mbir mi ki mu ñor mooy Ousmane Sonko nanguwu ci wax mais Ousmane Sonko ñun bu ko waxoon ñu xeeb ko Ousmane bu ci waxoon ñu xeeb ko ndax ba xeex jotee xeex na ko askan wi xeex ko ku nit ñi di xeexal di bëre looy bëre dem ba justice bindoon bu boo xool xool mënu ko taqal ci wàllu viol wala menace de mort mu indi corruption de la jeunesse lan la jur sénégalais yi taxawu ko ba li ciy xew-xew ci yàlla miy seede suturaal ko suturaal ko ba sénégalais yi wóolu ko dénk ko réew maanaam démb dama toog ba si àgg ma ne Ousmane Sonko yàlla moo ko tànn lu tax Ousmane Sonko yamul ak Jomaay yàlla moo tànn Ousmane Sonko Ousmane Sonko tànn Jomaay te te te choix bi suñ borom di def moo gën a baax usman yàllaa ko tànn mu tànn Jomaay kookoy Ousmane Sonko parce que pexe ñoom ma jambal jaañ yépp bu juboon. du sotti askan wi jàpp nañ ci mais ndimbalu suñu borom Ousmane ko am na ko léegi démb damay déglu ma jambal jaañ may jël note malgré mi ngi taw Kër Massar mi ngi taa mais ma jëmal il fallait que ma dégg ko nopp parce que le journaliste intéresse wu ma mais bi mu ne day politique bëgg a doon député man ma jàpp ni dana war a barrer la route à ma jambal maanaam képp ki patriote képp ku nekk ci réew da nga war a taxaw ba ma jambal du doon député man loolu laa gëm. lu tax warta doon député mooy askan wi ñoo war a am fulla démb dafa ne man Sénégal li muy rëy rëy rëy ñetti kër laa fay dem añee fa reeree fa mooy kër Macky Sall kër Amadou Ba ak kër Diagne Ndiaye te ñooñu ñëpp kii président la kii premier ministre la Diagne Ndiaye c'est un milliardaire kon moom le sénégalais lambda la sénégalais pauvre la sénégalais damba ma jëmbal kooku ñoru ko mu ne bu dul ñett ñooñu ñett ñooñu xam ne ay milliardaire lan da yaakaar na ci ñoom dara wala jàpp na ni war na mën a am dara ci ñoom kon ñooñu mën na yendu seen kër mën na fa añee mën na fa reere waaye bépp sénégalais bu ko soxla danga koy fekk si waaye du fekki keneen léegi ma jëmbal ñoom moo tourné ñëw na sénégalais yi damaa soxla ngeen fal ma député maanaam sénégalais bi ñàkk sénégalais bi Madiambal dul añee këram sénégalais bi Madiambal jàpp ni bu ko soxlaa da ko war a fekki tey jii Madiambal moo soxla sénégalais boobu sénégalais boobu mu xeeb sénégalais boobu mu jàpp ni waru ko tax a bàyyi daraam sénégalais boobu nag moo am fulla ba Madiambal Diagne waxuma la moom mu doon député mais coalition bi ko investir sax ñoom Amadou Ba waruñoo am député parce que boo bindee sa loos wi ne faalewuma kenn bindal sa jëb yi ne kenn faalewuma te loolu sénégalais ñoo ko war a lijjanti ak Madiambal Diagne tey Madiambal moo tax ma gontu de Kër Massar a ngi fees dell ak ndox mais Madiambal dafa jar a gont kon waruñu ko woteel faalewuñu ñetti nit la faale ci réew mi ñoo ko jaral jug kon ma jambal fu mu dugg di campagne danoo war a jël ay yet na ko bul yegsi parce que yow ba ngay mën soxla woo ñu ñett nga soxla ci réew mi Macky Sall Amadou Ba ak ma Diagne Ndiaye te sax Macky soxlaatu ko moom ma jambal Diagne pour wan leen ni rek fu tooy rek mu tax buñ jigee ci loolu ma jëmbal jaañ ne soxlawul immunité parlementaire ñu ni ko lu tax mu ne noo Sonko mu ne woon pour une fois nee na nangul na Sonko mooy politique bi duñ ko bàyyi ay politiciens ñi ñuy gouverner di dogal ay dogal yoo xam ne du dëgg ci ñun mu ne la Sonko waxoon moo tax mu jóg yéex ngaa jug de ma jàmbal man ko yéex ngaa jug de yéex ngaa jug immunité parlementaire nga soxla li ngay diwoo xeeñoo ko li ngay ngand ngandulu mënoo ko da nga ragal parce que xam nga ni la la doon protéger di la far ngay def les lundi de Madiambal les sucré salé yi saful dara Madiambal dem nga ba xam ne kenn liiratu la nee na li mu doon bind la bëgg a dem assemblée di ko fa wax parce que kenn liiratu la kenn jëndatul sa journal kenn bàyyeetu la xel parce que li muy bind kenn gëmu ko moom Madiambal Diagne Madiambal Diagne mu ne li jëm ci mbiri diine Sénégal mosul am coowal diine ci àddina entre régime yi fi jaar te Abdoulaye Wade amoon na fi problème ak église bi Modou yaa ngi may déglu yaa ngoon ci média yi coowal église bi mus na fi am ak Abdoulaye Wade coowal voile yi ci Macky sàll la njëkkee bu doon émission bi dañ ciy teg son dinaa leen indil la ca Mamadou Talla ministre de l'éducation nationale waxoon kon coowal voile yi njëkkewul ak usmaan sonk ma jambal waxul dëgg te li ci Ousmane Sonko wax kenn mënu ko dindi waaye duma ci dellu siwaat mais pour bu dire ma Madiambal Diagne waxul dëgg foofu mu ne lii nag buñ ko seetaanee mën na taal mi parce que ñii nee na li mu doon wax ci ñoom ne ay salafis lan gëmuñu diine ji démb waxul murit gi waxul tarixa yi de Madiambal diine la wax salafis Madiambal jàngoo salafis yi même buñ dee ay salafis mënoo leen génnee diine ji mu ne mais gëmuñu diine ji mais bu ñuy wax salafis wala ñuy wax intégriste wala ñuy wax islamiste des fois terme yooyu ñuy wax mooy ñoo xam ne dañuy gëm diine ji ba di ci ëppal loolu maanaam di ci ëppal di ci exagéré te mënuñu nangul ñeneen ñi mooy ñooñu gëm nañ diine mais dañoo xër lu tax nag dugalul baatu tarixa mu indi mbiri Cheikh Oumar Diagne teg ne yooyu yëpp mosul am ci senegal ma jambal Diagne murit yee baax te dégg ndigal mais Madiambal Diagne murid yi bu ñu yamoon ak yow doo duggati Touba Madiambal Diagne li mu fi bindoon ci sëñ Baara lu ko gën a ñaaw amu fi bi sëñ Moustapha nekkee xalif général des murid xaalis ba nga bindoon ca Touba maanaam ma Madiambal Diagne maanaam ci sa xalima dem nga sax ba di fi waxloo waa Touba loo xam ne waxuñu ko Madiambal Diagne yow li nga def waa Touba bu waa Touba meloon ni yow doo duggati Touba Serigne Bara xalif général des Mourides am na lu xewoon seen diggante am na ñu ne mës na la duma ci li nga ko waxaloon ma jàmbal lool fi la fekk ma jàmbal jaañ taxaw sénégalais yépp di ko dégg ma jàmbal ne lii la bëgg a xeex ci réew mi ndax li mu doon wax yépp am na te ma jambal Diagne diine bu doon ni mën na taal réew wala mu yëngal réew mi ci sa xalima lay jóge mooy mooy sénégalais ñoo yeewu ba yenn kenn mun leen ci dugal mosoo wekk waa Touba mosoo leen faale lu ne bind nga ko ci Touba tey ji nga ni lii masu fi am Ablaye Wade jëlu fi Serigne Saliou Mbacké def ko tëddali ci ma jambal boobu foo nekkoon est-ce que Sonko dafa def loolu est-ce que Diomaye dafa def loolu Madiambal Diagne fekk woo fi Ousmane Ngom yebal ay takk der ñu dem tiire ci jawier Seydi xaaj Malick bi nekk ci Ndakaaru dóor fa ay lacrymogène lool ci réew mi la xewee Madiambal boobu loo ci waxoon majambal yaa ñu mag mais ci réew mii lañ juddee ñun duñ tudd jéeri duñ mbadantaan ci réew mii la ñu fekk baax mun a xam la sénégalais ñoom man dama ne des fois les politiciens ak genre ma jëmbal jege dañuy gëmloo ni maanaam ñun dañoo gaaw fàttee mel ñun xamuñu dara ay naata xóonal la ñoo xam ne xamuñu dara quoi ñun même budul dara nekk nañ ay xale dugg ci presse bi nag sob loolu mais aussi am culture général di déglu di gis ma jambal Diagne ci wàllu diine ji lay wax ba léegi de Madiambal mënoo cee joxe exemple Madiambal jaañ ñëw ci mbir Yavuz Selim ma Madiambal Diagne bi Sonko di doog a nekk premier ministre gëm naa ne lettre bi sonk njëkk jot ci 2024 Madiambal moo ko binde Madiambal fan la lan la bindoon ci Sonko mooy école Yavuz Selim bi ñu remplacé ak fondation Maarif te Recep Tayyip Erdogan bi président turc def ko loolu la bëgg ñu dellusiwaat yaabu Selim parce que moom dafa bokk ci ñi doon dundee Yavuz Selim parce que yaabu Selim dafa nekkoon ci conseil d'administration bi ou bien association des parents d'élèves durant Macky Sall bi ñuy jëlee fi Yavuz Selim Macky Sall moo fi nekkoon ma est-ce que mës na interpeller Macky Sall ci loolu Sonko nekk premier ministre rek mu interpellé ko ci pour mettre en mal Sénégal ak réew mi di Turquie pour walla ma jàmbal ni mu dangereux mais heureusement Sonko la fi fekk majambal jàmbal démb bi muy ibbi émission mu wax ci courant bi courant léegi bi yi Bassirou Diomaye fay bi muy njëkk a janoo ak taskatu xabaar yi dem leen déglu Diomaye bi muy ibbi waxam bi ko journaliste bi laajee lan ngeen fi fekk mu ne fekkoon nañ fi ay sabotage jëm ci mburu courant bi ak ndox bi bi Diomaye falo sama première coronique bi ma def te 30 minutes chrono nee naa ko maytul courant beeg ndox mi bés bu lay saboté fa la jaar naka dem Macky Sall avant mi dem bëggoon na saboté ndox mi courant bi pour que bu régime bi ñëwee ndox mi ak courant bi coupé ñu ne kat de mënuñu danoo ñëw courant ak ndox di coupé korog bërki démb Diomaye war a janoo ak sénégalais yi toute la journée courant coupé am ñi interpellé directeur Senelec Toby Gaye ci panne bi amoon dégg naa Clédor Sène wax ci nañ ci bàyyi xel directeur Senelec bu bees bi mu moom yàgg na Senelec te yàgg na ak régime bële pourquoi am jëmbal démb mu nuyoo rek dugg foofu pourquoi ma jëmbal dugg rek li naan soppe noon bu nitee moo gën soppe bu dof jomaay dànkaafu na am na ñu doon dànkaafu ci courant bi coupé woon ak ni muy coupé temps yi ma jëmbal ñëw rek laal foofu ne de 2012 à 2024 courant presque coupé wul ci Sénégal budul accident mun ne ñii rek ñëw mi coupé mu ne danoo télé kon li Macky Sall préparé woon doon saboté courant bi pour ñoom ma jàmbal defal ko ci communication ma jëmbal ci loolu la ñëw mais ma jëmbal waxul dëgg panne fépp la mës a am. pan fépp la mës a am te Senelec nañ ko surveiller man wax naa ko bi Diomaye njëkkee falu avril courant beeg ndox mi na ko xool ñam koy dénk na leen xool bis buñ koy saboote foofu la ñuy jaar te ma jàmbal dëggal na ni daal lees waxul pour pourquoi ma jàmbal ñëw rek teg foofu loxoom te pourtant courant coupé fu coupé gi tax ñuy wax kon loolu lu jar a bàyyi xel lu tax na courant di coupé ba tam ma jàmbal jaañ wax ci. li jëm ci loi de finance rectificative wax ci FMI xaalis bi mu ñu waroon jox joxuñu ko mais boobu dafa fekk ñoom assemblée bu bon assemblée boo xam ne lu nguur gi ñëw indi mu rejeté ko pare woon nan sax pour rejeter budget 2024 bi moo tax ñu tas kii bi dem ba dugal motion de censure assemblée boobu moo tax loi de finance rectificative amul moo tax émission xaalis bi parce que pour jotoon ci xaalis bi il faut que loi de finance am mais ma jambal fi mu ko dugal mooy gaay yi ñoo cuune foofu la ma jambal jaañ ñëw ma jambal yamul foofu mu ne tey nga deere yaa ñu mag mais ëppoo ñu xel ma jambal ñëw waa wax na ci FMI wax na ci xaalis bi ak fi mu toll mais ma jëmbal ñëw ci mbiri reddition des ma jëmbal jafe ji fa yi nga wax ci réew mi yépp ci juróom benn weer te Macky Sall yàq ko ci fukki at ak ñaar mooy ñu mel na yow ak ñeneen ñu mel na ñoom Lat Diop ak ñeneen ak ñeneen li ñu waroon def bu ñu ko defoon réew mi du toll fii tey xoolal inondation yi ñu ne 750 milliards ñu ne à Kër Massar bi Macky di dem rek avant ñu koy def département def nañ fa une quinzaine de milliards nga dem Kër Massar tey jii mi ngi mel na dex Kamine Baas man ba ma foogoon ni jàbbaar ngeen de jàpp ni def nañ fa dara nga xool Alaaji Paate xool Sotrac nga xool Mtoa nga xool tey jii Kër masaar tey jii comme dex nga dem ba Aynu Maadi comme dex te boo demee Touba ak feneen ak feneen. loolu lu ko indi moo mauvaise gestion ñu jox leen xaalisu inondation yi plan décennal de lutte contre les inondations ñu lekk xaalis bi taux d'exécution bi jomaay bi mu njëkk a janoo ak taskatu xabaar yi am na lu mu ñu ji wax mooy ay marché yoo xam ne lekk nañu xaalis bi te kenn livré wu ko bu doon ni alalu réew mi yéen ñin ko dénkoon yor ngeen ko yorin bu baax lekkoo leen ko sàccoo leen ko tey ji sénégalais yi dun dund coono bii Sonko ak Diomaye ay jafe-jafe lañ fekk ma jëmbal li nga wax nii yépp mooy metti ci réew mi doxul lu bu doxul mais yéen la parce que yéen a yéen a mais yéen lekk maanaam ndekkee alalu réew mi añee ko reere ko noose ko seddoo ko li ngay wax ni du lu bees ci réew mi maanaam li ngay metti du ci réew mi du lu bees mais bi ko Macky Sall di def ci malgouvernance manque de transparence boobu foo nekkoon boobu foo nekkoon ma foog ni moo ñu gën a muus ma jambal ci mbiri Lat Diop ñu laaj ko laaj ko ci mbiri or bi or bi ne dañ ko jëlee ci réew mi dugal ko ci jet privé ma jambal ñaar yooyu yëpp daf ne xamuñu dara <laughs> parce que san ne l'arrange pas daf na xamu ci dara parce que arrangé wu ko xam na ci dara li ko mbiri Adji Sarr jaral ba mu ne da ciy bind téere li ko mbiri Diomaye ak ko jaral ba li mu ciy wax mu ko ci wax mais ma jëmbal parce que xam na mais bee comme ci seen régime la te gaa yi danoo dugg ci guta mu ne mbiri Lat Diop confrontation da ci war a am léegi Mohamed Dieng mi war a defal confrontation bu fi nekkul dañ ko war a may liberté provisoire parce que la la présomption d'innocence ma jàmbale yow gëm nga présomption d'innocence ma jàmbale c'est un homme dangereux yow gëm nga présomption d'innocence ma jàmbale yow mi jàppoon ni tëj Sonko ci kaso bi denc ko fa mooy tax Sénégal am jàmm maanaam yow da nga jàpp ni Sonko warul génn pour Sénégal am jàng Sonko day des ci kaso bi à vie loolu nga gëmoon te pourtant Sonko ay tuuma kase la mais tuuma yi bokk nga ko ñi ciy ñi koy dëggal bay jàppale Adji Sarr mais di ci bind ay livre jën ca lire éditorial journal Le Quotidien soppi ko lépp contre Sonko chaque lundi les mën lundi dama jambal jaan sucré salé lépp ci Le Quotidien bind boo bind resté contre Sonko te boobu Sonko tuuma kase la kon tey Madiambal tey nga gëm ni présomption d'innocence war na am ci mbiri Lat Diop Madiambal du sérieux un peu mais aussi du respect ci ñi lay seetaan ak di la déglu bi ñuy jàpp Bassirou Diomaye Faye pour benn tweet gëmoon nga présomption d'innocence bi ñuy jël mille jeune di leen tëj ci kaso bi des présumés innocents à Kër Massar gis naa koo xam ne bi bi muy tudd doomam lañ ko fekk yanu ci jamonoy yi ñu jàpp booy yi man gis naa ku ñu jiñ ne dafa taal ay biche bi ñuy taal biche ma ngi ko fekk Ziguinchor benn booy soose Kër Massar des jeunes présumés innocents pourtant yow da nga doon bind pour di leen gën a dugal danga doon bind pire di leen gën muye pour que ñu dee ci kaso bi tey nga ni non pour affaire la job présomption innocence non il faut être sérieux affaire or yi nga ne xamoo ci dara te di añee kër Macky di fa ndékkee di fa reere parce que bëggoo ci xam dara kon daal présomption d'innocence li kii doon wax euh, musaa Bokar Thiam cuune bi présomption de culpabilité am na ci droit léegi moo tax ñu war a jàpp ñoom Sonko ma jàmbal tey nga ñun indi ni présomption d'innocence ci mbiri Lat Diop parce que am na garantie de représentativité te nga ko gëm non Madiambal Madiambal n'est pas sérieux Madiambal Diagne waxee jëm ci gars yi ñu interdit pour ñuy génn réew mi nee na moom heure bëggee génn génn génn loolu moom amuñu luñ ci wax parce que man des fois je pose question ñu ngi dem élection dans moins de deux mois ngeen bëgg a nekk député bëgg a génn réew mi ça ça montre que bëggoo leen nekk député Madiambal Diagne wax beneen mbir ci élection yi Madiambal Diagne mu ne décret bi ñoom Khalifa Sall dem attaqué décret boobu conseil constitutionnel ak cour suprême mën na ko rejeter parce que du jomaay moo war a jàpp bisu élection mu indi. li jëm ci euh, li Macky Sall defoon jàpp bisu élection conseil constitutionnel na ko du noonu mais bi conseil constitutionnel jàppee date Macky dafa jàpp datam conseil constitutionnel fekk si waat Macky Sall mais foofu Pape Ngagne Ndiaye relancé wu ko mais da ko waroon relancé indil ko dëgg gi ma jambal le président de la république élection législative yi moo ko war a jàpp parce que loi bi xamul lan la wax Jomaay Fay Jomaay def Jomaay légaliste la de bu meloon ni yéen wala Macky Sall du seeti conseil constitutionnel du def dara day ji Macky bi mu koy def seetiwul kenn dafa ñëw rek def lu ko neex dafa seeti conseil constitutionnel ban gëmal ko ni mën nga tas assemblée nationale bi le 12 mars pourtant Mimi Touré waxoon na ko mën nga ko tas juillet mais bu doon pour des affaires politiques rek li Mimi Touré la wax lay def mais dafa dem seeti yoon ba yoon na ko ni ngay def. yoon bi ne Diomaye mën nga tas assemblée nationale moo ne ko ci décret bi nga tasee assemblée nationale décret boobu ci ngay jàpp bis bi ñuy dem élection ñu mu ne lu mu gàtt gàtt ñaari weer waaye lu mu bari bari ñetti weer maanaam soixante jours quatre vingt jours kon Diomaye décret bi ko may sañ-sañ mu tas assemblée moo ko may sañ-sañ mu jàpp bisu élection waaye bëggoon leen dem waaye di ngeen dem de dingeen dem te doo nekk député parce que ñun bëgguñu ñun dañ na les représentants du peuple ñoo xam ne ñoo ñu war a taxawal mais ñun bëgguñu Madiambal taxawal parce que ñun gisuñu suñu bopp ci Madiambal loolu loolay dëgg lu mu la jaral pour nga doon député rek na ko jaral booy yi pour du ko doon waaw parce que jox ko fi immunité parlementaire du nga ko def te Madiambal li mu yaakaar nee na moom du nitu ordinaire boo xam ne da ngay ñëw rek jàpp ko def ci moom la parce que moom ca bitim réew dafa am ay ndomba tànk am fa daraja ma jambal kon ñi la doon wax naan dañ la yónni est-ce que nekkul lobby tubaab yi wala la am na ñu koy xalaat on ne sait pas ma jambal est-ce que nekkul ñooñu la may fit mais bul fàtte ni ñoo ñooñu jëm na nañ lépp ci Sonko ak Diomaye pour ñu bañ a falu mënuñu ko ji nga la volonté du peuple mënoo ci dara. réew mi nekkatul ci loxo Macky Sall Amadou Ba di premier ministre. réew mi da ngeen di réglé de te man sonk ak Jomaay côté boobu dama leen ci xaw a mere parce que daf ci am ñoo xam ne war ñu leen bàyyi ñu tourner en rond da leen war a lijjanti dig leen ci place ñu toog waaw parce que aussi daa am yoo xam ne ça ne pas se passer warul am. dootul am mais malheureusement te jii gars yi ñu ngi am fit dem maa ngi dégg Biram Fay Biram Fay def fi lu ne wax fi lu ne démb taxaw naan non deux poids deux mesures deux poids deux mesures naan noo mbiri mbiri kii ONAS ak mbiri ASER dañ ko war a auditer taxaw ci yéen yéen li leen toppee li leen toppee yéen du Sonko ak jomaa ñoo leen ko jiiñ ay rapport Cour des comptes yoo xam ne da doon nelaw ci nguuru Macky Sall ak IG ak OFNAC ba ci parc financier Macky moo ko créé loolu tax man nga indil Sonko un loolu tax man mbir yi yéex gi mu yéex man looloo ma metti pour man ministre de la justice bu bees wala kon jeex na Ablaye mu ngi noonu tey kay ma jàmbal rek doyoon na nii rek doy na beneen yoon fekk gouvernement bi actualité bi ñu gën a wax mais tey il fallait ma xuus ci taw bi lu mu jar ma def ko pour ñëw rek wax ak ma jàmbal jaañ pour rek lépp lu ma jàmbal tabax foo ko naan sax xajul ci 30 minutes mais c'est bien ñu mën ko démonter dindi ko. waaw ah, parce que ma jambal bu doon nit ku normal laa la wax de nekk doyen Ablaye nga baal ma billaahi man mi sax mun naa tuuti ci tontu ko parce que suñu doyen la mais normalul normalul waaw ah, loolu tax euh, journalisme bi il faut ñu xoolaat ko école ya gars yi jàng il faut ñu xoolaat ko il faut que ñu xoolaat quoi billaahi il faut ñu xoolaat ko parce que genre Madiambal yi li lim fi wax yëpp dindi naa lépp te li ma wax kenn du ci dindi dara. démb li ma jàmbale doon wax ci fële dara taxawu ci waaw di le grand PAM gañ nag ñu ngi koy nuyu bu baax rafet na di gërëm baax ab Ablaye jàlloo di gërëm Modou juuf di gërëm euh, Abdou Top ak Ablaye ak euh, Fallou di leen ñaanal jàmm kon euh, ba beneen yoon incha allah Omar bun Xataab gi moo nekkoon ci kàddu bi